fépp euh, nit yëngu ci jàng ak jàngale partenaires yi jàngalekat yi inspecteurs yi ñëpp ak parents yi dajale pour def li ñuy wax fête de l' excellence fête de excellence nag bu ñu ko waxee dañuy xool ñi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci wàllu résultat ki département bi ñu neexal leen loolu nag dafay tax xale yi nga xamante woon daawul woon góorgóorlu bu ñu gisee seen morom yi dinañ gën a sawar jàngalekat yi nga xamante ni ñoo nekk département bu ñu gisee ñuy primé seen morom yi dinañ gën a sawar loolu lañ dem def ko macha allah euh, activité bi réussir nañ ko moo tax sax ñu def ko ci semaine de l'école de base bi nga xamante ni thème biram ren làkk réew mi nan la def. ba ñu yokk qualité njàng ak jàngale mi parce que ñëpp xam nañ ne benn réew mësta développé te jàngalewul ci biir ay école am les langues nationales suñu langue yi suñu làkk réew yi nag dañu war a fonk dugal jàng parce xale yi moom lañ gën a comprendre moom wax dëgg yàlla certificat ak en sixième wax dëgg ak defam am nañ ci ay yu baax bu xoolee certificat def nañ ci am nañ ci au moins 60 virgule 3 pour cent loolu dafay wane rek bi def na ay jéego yu mag ci wàllu CFEE ci wàllu BFEM li ñu ci gën a neex mooy def dem nañ ba dépassé nañ leen mooy téeméer boo jël xaaj ba jàll na loolu aussi ay performance yu baax la di wax nag ne loolu bu amee c'est parce que jàngalekat yi directeurs yi proviseurs professeurs yi principaux yi ku ci nekk da nga jigéen ak moo tax ñu arrivé ñu am résultat bu baaxee bu baax bu baax waaw di wax rek ne fête bi organisé dañ ci profité aussi pour delloo njukkal ki nga xamante ni moo jiite woon inspection de l'éducation de la formation moo tudd Moustapha Diagne donc aussi vraiment def na galerie yu rafet donc ñu ne woon daal tey bis bi dañ ko tudd pour fête